salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam wa rahmatulah. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm Sénégal bi yaa lañ wax Sénégal Gambie moom bu ñu bokkee di liggéey moom day rafet rek. nuyu nañ la yow la kan. man la Fodé Fati. Mm. Gambie laa jógee. Mm-hmm. waaw. Fodé dafa mel ni yéen tam am les mêmes jafe-jafe que les sénégalais. waaw sax parce que ñun ñun ci affaire moom mooy kay. Mm-hmm. sonal nañ fi lool def nañ ci lu nekk ñaari at moom ñu ngi koy toog léegi amaguñ. yow ñaata at nga fi def. man instant yi def naa fa deux ans. ba léegi amoo kimlik. ay nga def sa dëkk mënoo ko def ba pare doo si def benn problème bu ñu la jàppee ñu téye la yàqal la si kaso bi defoo dara boobu sa liggéey rek mais kay daal moo ñu tey quoi. léegi yéen seen gouvernement ban jéego la ciy dox. suñu gouvernement bi topp nañ leen topp nañ leen waaye ba léegi sotteegul moom a dëkk yàlla moom. mais ñu ngi ciy def ay jéego. waaw ñu ngi ciy jéego ñu def waaye liñ gën a yite moom président moom bu ñëwee moom président lay gis waaye ambassadeur bu ñëwee ambassadeur lay gis am nga loolu moom li mu soxla moom dëgg yàlla moom ba léegi amagu yi wax ne ñoom bu Macky Sall ñëwee dina am ay seen ay jafe-jafe yu wàññeeku. waaw waaw Macky Sall bu ñëwee fii jafe-jafe yu bëri day wàññeeku Sénégal waaye ñun suñu président a neex na moom bu ñëwee président lay gis. Mhm. ministère ministre lay gis. loolu daal am nañ ci jafe-jafe kër lool lool. léegi looy yóbbante waa Sénégal Gambie. waaw comme dañuy seetaan Sénégal. ñu xam lan nga bëgg a yóbbante seen président ak seen gouvernant yi nekk foofu pour ñu mën a jàppale seen doom yi nekk ci. ok li may li wax daal moom daal ñu ngi gën a jàppale ñu bu baax a baax parce que sonn nañ fi lool. Hmm. yaa ngi bëgg a liggéey am doo xamante yaa ngi gis bunt loo mën a liggéey waaye amoo kayit amoo loolu moom li ñu gën a jàppale moom gouvernement bi daal Macky Sall kii Macky Sall ñëw na fi gis nañ ko mag Adama Barrow tamit bu ñëwee fii mu gis président bu ko defee day gën a dimbale ñu lool waaye ambassadeur yi muy yoon yi ak eh, premier ministre yi muy yoon yooyu moom dëgg yàlla moom ba léegi jafe-jafe am ñu ñu ci am jafe bu baax ba léegi. yéen daal président ngeen soxla. pas ay ministre ak ay envoyé spéciaux waaw bu ñëwee fii daal ñu gisee wàññeeku quoi mais ba léegi incha allah incha allah ñu bëri Gambie ñu bëri ñuy téye kaso bi ñu bëri delloo nañ la encore te def ñu dara yaa ngi def sa biir ñëw fii bu ko liggéey mënoo am ñu jàpp la delloo la moom loolu dafa métti. Mm-hmm. waaw loolu daal loolu lañ def ñaan Gambie ñëpp def. waaw baax na yóbbante bi dina àgg incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf seen taxawaay yi rafet na mënuñ ko wax fekk fa ngeen ñëw fii ñu wax leen ko ñu yëgal su waa Gambie ak Sénégal yëpp mm-hmm. ñu leen sant loolu di leen gërëm bu baax a baax a baax sant di leen gërëm baax. yéen a ngi suivre Sénégo. waaw waaw Sénégo ak Sénégo jërëjëf li ngeen def moom neex nañ trop trop dégg yàlla moom sant nañ leen gërëm nañ leen. jërëjëf jërëjëf yàlla seen liggéey gën eh, jëm kanam. amiin wolof moom dafa xaw des tuuti bu dee soose la ma gën a wax mu gën a rafet. <laughs> bu la neexee tamit mu ne ko bu la neexee tamit. <laughs> waaw mbe moo be kontonan mbe ɓe tendula mbe jeyla allah naja diyata ñe baake alhamdulillah because nde fotokuma kan jama fola ata fof nola faale naja maalam moy sonanna to ñambal tendulongal jayi e so wasena gos almalla dow goto haala ñaato ila hormoto la ila ko inchallah sala taram fo ɗe faati e sabu toppi baraka baake ngal konto